problème bi nag fi mu commencé fi ñu ma commencé écarté ndax man euh, avant maa nekk en état jël na couronne bi gagné naa miss bi ba mu am ay cinq mois yooyu ma topp leen di leen laaj liñ ma war a jox et tout euh, benn jour si lañ ma woo benn activité fii ma ñëw Dakar jam ñaajo benn euh, benn euh, activité bu ñu doon def foofu ak Macky Sall je ne plus ban kii la woon léegi bi ñu jógee ci activité boobu ci lañ dem Radisson bu jam ñaajo ñu reer def lépp ak xaritam yi fa nekkoon ñetti euh, ay xaritam lañ daal ci cérémonie boobu la ñu ñëwoon aussi ay xaritu Amina lañ bi ñu reeree toogandoog ñooñu reer ba pare ñu war a dem tëddi ñu ñu yéeg war a dugg suñu chambre tëdd mu ne noonu nañ leen dem ci suite ñooñu ci lañ demee ci seen euh, suite toog di waxtaan man maa demoon euh, Amina ak Alberta Diatta mooy Miss 2019 bi ñun ñett ñoo àndoon biñ demee ci suite ñooñu tamit ñett ñi ñu toogaloo di reer ñoo fa nekkoon ku nekk toog am kenn ku ñëw toog sama wet loolu yëpp sax euh, liñ naan booy nekkee ci interview pression beeg yooyu di nga am yoo wax am yoo fàtte si la kooku ñëwee toog sama wet commencé di wax man comprendre woon sax li muy wax ndax anglais lay ay anglais am sax leerul ay naar lañu. mi ngi noonu si laa jëlee sama téléphone comme xawma yooyu noonu te ay inconnu lañ ci man ñu toog. ñu toog noonu mu commencé di wax ba jël sama loxo sax commencé di ma caresser mu jëlaat sama loxo ndànk nekk ci sama téléphone si la Amina ne waa faatiment nan ngay toogee ak ay autorité teniiroo leen compagnie waxtaanoo ak ñoom nga sëgg ci sa téléphone di ko manipuler ma ne ko ah man kat ñii li ñuy wax comprendre ko en kii man li muy wax sax xaw ma ko mi ngi toog di wax mais man li muy wax daal comprendre ma ko mu ne waa baax na si lañ toogaatee noonu di waxtaan di waxtaan Uh, ki toogaw nag Amina kenn ku góor ki nekkoon ak Amina ndax dañ ko ni ma ko démb bi may def interview bi noonu la ma ko kooku waxee mu ne ma maanaam daal da ngeen toogoon par couple ma ne ko mën nañu wax loolu ndax ku ci nekk dem nga ci kenn toog fa ku góor ki toogoon ak Amina ne débarrassé table bi nekkoon foofu ne naa yéeg ci kaw table bi fecc loolu yëpp sax nag waxuma ko ci interview bi ndax comme ni ma ko waxee pression beeg yooyu et tout mooy loolu da ngay wax di fàtte yenn yi ñu ne naa yëg ci table bi fecc ma ne leen yëg ci table di fecc pour lan. ñu ne ma yéegal fecc ambiance Amina ne yéegal ma ne ko non du ma yéeg fecc ñu insisté mu jugi ma ne leen mënuma ma yéeg fecc mënu fecc en sama tànk day metti ci lañ toogaatee noonu après man par la suite comme ni ma defoon rek ma sëgg ci sama téléphone di manipuler et tout bi affaire bi jéggee dayoo nag Amina ne ma waa Fatima comme que teniroo kenn compagnie yaa ngi toog sëgg ci sa téléphone ma ne ko waa kon mën naa tëddi ndax après kii ñëwoon toog ci man dafa mer bu bi ma toogee man kese Alberta toog fee di waxtaan nag kooku ami naa tamit même chose bi ma toogee ba affaire bi jéggi dayoo ma ne ko kon mën naa jël sama carte dem tëddi mu ne ma waa comme que amoo fi njëriñ kay teniroo kenn compagnie mën nga tëddi si laa jëlee carte bi dem tëddi bi ma tëddi jee ba ay trois heures du matin yooyu la Alberta ñëw dugg si. indi benn montre en or la xaw ma lan di ma ko wan loolu yëpp waxuma ko ci interview bi te dama koy réccu mais comme que wax dafa jot moom nañ wax lépp mu leer ci la Alberta ñëwee ci chambre bi indi montre en or xaw ma ne ma gis nga lii de kooku moo ma ko jox nee na mën naa génn moom xaw ma mën naa nekk ak moom te Amina sax du ko yëg lu mu bëgg mën naa ko ko mën naa la koo defaral lu ma bëgg mën na ma koo defaral ñu nekk te Amina sax du ko yëg Alberta moo wax lii li may réccu nag mooy. booba xaw ma woon li xew mënoon naa ko enregistré wala ma jéem a preuve boo xamante ni ndax ay seen lépp dañ koy calculer aw ma benn preuve buy euh, firnde loolu mais Alberta moo wax loolu sama nopp ak làmminam ci la ñu kiiwee tëdd noonu ba suba Alberta ci la ñëwee tëdd si ñu tëdd noonu ba suba euh, Amina moom bi ñu demee gisaatuma ko ba ci suba si si la ñëw suñu suite fi ma fanaan man ak Alberta ñu ndekki dellu si Dakar jour boobu dañu waroon xëy sax voyager dem Maroc si lañ dellusee dakaar bi ñu ñëwee dakaar ñu toog coordonnateur bi ñëw ne ma yow faatiment yow yaa def li ñu li ñu wax yow yaa ko def euh, danga nga toog ak autorité ay personnalité sëgg ci sa téléphone faale woo leen waxoo ak ñoom et tout ma ne ko ah man de comme ni ma ko waxee man ñooñu li ñu doon wax comprendre ma ko te effectivement sax maa ko def ndax nekkuma woon à l'aise moo tax ma sëgg ci sama téléphone di ko manipuler mu ne ah kon Alberta yow daal yow yaay nandite bi yow laa gëm de. tourné ne Amina kon pas de voyage Amina ne ko waaw pas de voyage ndax man moom xale boo reewee xam naa fi ma lay xaaree booba maa ngi dagg samay cours ñëw ndax dañu wax sama yaay ne dañu war xëy dem Maroc si laa si ne Tonette ne ko kon mën naa jël samay bagage dem ñibbi ndax suba dama am cours comme voyage moo ma fi indi woon te voyagé tuñu kon mën naa dellu Fatick ñu ne ma waaw boo fi toogee yow yaa fi bàyyi sa bopp. problème bi foofu la tàmbalee ñu écarté ma faaleetuñu ma lijjanteetuñu ma comme ni mu koy waxee rek dama réew ndax moom moo toogoon fu nekk di ma défendre nekk man euh, dama yaru dama calme bokk na ci critères yi tax ñu jël ma et effectivement du du li may wax moo tax mais xam naa ni yar nañ ma fi ma fiñ ma war a yaree am naa respect ci nit et tout foofu la problème bi demee foofu la problème bi euh, démarré mi ngi noonu quant ak révélation bi sama yaay def aussi dëgg la comme ni mu ko waxee xaw ma lan moo xew xaw ma man ba tey xaw ma lan moo xew ndax dama ñibbisi di feebar di tëdd ko jóg feebar feebar yu ndaw yooyu bi ma njëkkee yóbbu comme ni ko sama yaay waxee ci interview bi dañ ne début fibrome la mu ngi noonu après par la suite si la ñuy jóg di daanu di dem hôpital ba après par la suite si lañ ne dama nekk en état ba maa ngi ci 4 mois mi ngi noonu fii nag Sénégal la ndax yaakaar naa ne sama saakar duma ci nekk dégg ci lu nekk ñu may saaga di ma xas lu nekk ñu wax ma ko ci may wëlbatikuwaat waat waxuma sax sama famille sama yaay samay mbokk waxuma sax ñooñu mais man may wëlbatiku waat di di di joxe sama bopp pour di ëmb ñépp di ma xamal noonu daal la demee mu ngi noonu fu mu nii dangay wax sax ba dangay fàtte doo xam lan nga war a wax etu coow li bëri na instant yi li ma doon bañ yépp am na ndax sama dignité ñëpp xamal nañ ma looloo taxoon may nëbb mu ngi noonu nanguwuñ dem fenn ndax bi interview bi sama yaay def bi mu génnee rek suñu mbokk yëpp ñu ngi woote di dal suñu kaw naan waruñu woon a def interview bu dul dara ñu sàmm sama image ndax ëllëg war naa am famille et te aussi dëgg la man loolu laa ci doon daw ak coow lii amoon sama saakri yëpp ndax dama siiw du miis bi ma gañe moo tax ma siiw mais wax ji bëri woon na miis bi dafa ñaaw dugg na fii génn na fii kon bu fekkoon ne lu bon moo ma tax a jóg wala damay def li may def ba leneen di ma ci fekk fii Sénégal la mënoon naa lijjanti dindi ko mais ndogal la bu ñëw sama kaw aussi man ma dem ba xam ne ndogalu yàlla la ma nangu ko toog ak sama dignité noppi et mais dafa am yoo xamante ne comme ni ma ko waxee ci début bi ndimbal na ci fekk loxol boroom ay nit duñu jóg di la xeexal nga toog noppi nekk sa coin te nga xam lépp ni mu demee doo wax loolu kese moo tax ma génn def interview bi mais man bu ma amoon lu ma gënal sax duma wax ndax li ma ci doon bañ mi ngi nii yëpp am na sama vie fu mu nekk nii dara laa ci bëggatul ndax début ba nii la demee woon